Pastef, Ousmane Sonko, notre client, a été encore une fois enlevé de chez avec une brutalité inouïe, indigne d'un état de droit. Manu militari, il a été conduit au niveau de la BAG, Brigade des Affaires Générales qui dépend de la DIC. Et curieusement, c'est la sûreté urbaine qui a procédé à son interrogatoire. Sous un prétexte fallacieux de vol d'un minable portable qui appartiendrait à une personne qui ferait partie des forces de défense et de sécurité. Après l'interrogatoire, tout le monde a pu constater que c'est un jour non ouvrable, que toute la procédure a été ficelée. Et lorsqu'on parle de complot d'État, certains ont encore à en dire, à en redire. Et actuellement, le procureur de la République a empêché les avocats de le voir. Et on se demande au nom de quel droit il le fait. J'ai toujours dit que dans ce pays, le problème, c'est le parquet. Et que résolument, il ne peut pas y avoir de réforme fiable et viable si, en fait, les pouvoirs exorbitants que le parquet utilise abusivement ne sont pas en fait remises en cause. Il est vrai que j'ai réussi à le voir. Il est serein. Il est en train de lire son Coran tranquillement. Et je l'ai fait comprendre que si je peux le voir, il n'en est pas ainsi pour les autres. Donc il n'est pas question que je reste avec lui et que je vais demander aux avocats présents de me suivre pour qu'on porte cette anomalie et cette violation encore des droits de la défense au niveau de l'opinion nationale et de l'opinion internationale. Il est manifestement clair que nous sommes dans une dérive autoritaire et la défense elle-même se trouve dans l'impossibilité de rencontrer son client, de s'entretenir avec son client, de le préparer à l'audition du juge d'instruction, et c'est un scandale. Il faut que l'opinion publique nationale et internationale se fasse une idée. Définitivement, dans ce pays, c'est l'autoritarisme. Dans ce pays, c'est la rupture définitive avec la démocratie et l'état de droit. Et nous sommes venus ici pour faire cette dénonciation afin que nul ne li ma bëgg a wax moom moo di li xew ci réew mi dégg na dayo ñëpp gis nañu ni ñu këppatalee Ousmane Sonko ci ay tuuma yoo xam ne que gone sax bu fekkee ne day tuuma day teg tuuma dina ko sant dina ko nas te ba koy génnee dina nuru dëgg wante lii dafa di loo xam ne que dafa jéggi dayo ndax ku mel ni Ousmane Sonko ñu ne dafa ñëw sàcc portable ba pare xamuñu lu tax mu toog foofu naan dafay koy filmer te loolu ci yoon bu dee ci yoon rek lañ nekkoon kooku lañ waroon jàpp ndax amoo droit filmer nit te fekk joxu la autorisation ci kaw loolu lañ ko fi indee gis nañ ne que kenn liggéeyu tam xarit la te bu fekkee ne que xëy nañu ci yoon nit ñi dañuy dallu duñu liggéey ñu patam patame lépp defar lépp ci bés yi nga xam ne kenn liggéeyul léegi nag boobu ba tey ci li nga xam ne wax nañ ko avocat yi jottali nañ ma ko ndax ajjuma laa fi gëj dégg nga Euh, moom moo di que boobu ba tey kenn mënu koo teg bët procureur boofu na ci kawam ci suba si it war na dem janoog juge bi war nañu wax ak moom war nañ ko préparer war na mën a xam bu demee lan la fay war na xam bu fekkee ne dem na naka lay tontoo ak sañ-sañ yi nga xam ne ak àq ak yelleef yi nga xam ne que doomu aadama daf ko am bu fekkee ne que dañ koo topp ci yoon te mu janoog enquêteur wala mu janook juge d'instruction nee na moo lànk moom moo carré loolu dafa wane ne que fi mu ne mbir mi doole la ñuy jaay mbir mi complot bi ñu doon wax ne que complot la boo xam ne que dafa lalu nit ñi di ko weddi léegi am nañu firnde ne que complot la complot boo xam ne que pour que moom ci boppam sax mu mën a euh, maanaam wax ay mën a topp ay axam ñu jox ko ay yelefam loolu lépp dañ cee boof léegi nag loolu laa bëggoon addina bi yëpp yëg ko man gis naa ko wante amul bare gis sama client mu ne ma demal ma ne ko bu fekkee ne que dem naa day nga dinaa gis dinaa ko gis dinaa wax ak moom ba ma ñëwee ba may dem benn avocat nekk foofu benn avocat moo moo ma toppoon avocat bi di wax ak moom ma génn bàyyi leen fa ñëw gis Ousmane ne ko mbir mi nii la tëddee léegi nag man rek du ma sa avocat man rek munu ma laa gis il faut que ñëpp gis ak yow gisante ak yow loolu laa doon yëgal si léegi nag maa ngi koy tas ci xabaar yi addina bi yëpp xam ne que procureur li muy doxale tegu ko fenn te li mu def du yoon ñun ñëpp ñun nga war a toogandoo sottante ñun xalaat ñu xam naka la ñu bu fekkee ne dem nañu kii bañ na jaar fii man ma jaar fële ma dem ba jaar feneen mu yàq sa défense mu ne ma loolu ànd naa kon boog demal looloo tax ma ñëw mu ngi foofu nag di liir alxuraanam mu ngi tey mu ngi àndaloo ko yëkkati mu di askanu Sénégal loolu laa xabaar boobu laa amul lu mu fiy tas. ak xam ñu jox man ah, fekk naa ko bureau nee naa ko munoo dinaa gis dinaa ko gis toppoon avocat bi di wax ak moom léegi nag man rek bégal si léegi nag maa ngi koy tas ci xabaar yi addina bi yëpp xam ne que procureur li muy doxale tegu ko fenn te li mu def du yoon ñun ñëpp ñun nga war a man ma mu ngi foofu nekk di liir alxuraanam mu ngi tey mu ngi ànd gëm yàlla